On est là dans, dans le village de Djaouba, de Marsassoum, département de lieux, donc accueilli vraiment comme des princes par la plus haute autorité religieuse dans la personne de El Haj Lamine, Cham, qui est là, qui nous a accueillis avec toute sa famille et qui ont grand espoir en ce, en ce puits. Ils nous ont raconté toutes les galères qu'ils avaient à, s'approvisionner en eau et quel impact elle aura, elle aura sur cette euh, contrée, surtout qu'ils tiennent une madrasa. Et qui dit madrasa, c'est quand même l'importance de l'eau pour une madrasa et pour tous ces foyers qui sont tout autour de lui. Donc on a grand espoir que ce puits, Inch'Allah, donnera satisfaction à tout ce village. kon vous teen bi yi nga xam ne moom lañ fi def jublaay bi loolu kese la def ko te yàlla tax def ko fii sabilillah def ko ngir dimbal leen teg askan wi def ko ngir teggil coono yi euh, nga xamante ne moom la waa dëkk bi nekkee woon ci ci wàllu sarax defe ñun ci loolu lañ nekkoon ay at yu bëri ba def na lu toll ci six ans ci ay teen ci loolu la ñu beneen association bu tudd euh, Mama Teranga ñëw seet si ñu ne dañoo bëgg a def ab teen jox ñu seen xaalis mu daal yem moog teen boobu ñëw fii seen dëkk kon teen bii ñu ko financé ñoom ñooy Mama Teranga nga la association boobu tudd mais jaar ci ñun nañu dañoo bëgg a dem ak maanaam ci dëkk bi nga xam ne mooy Diaouba te alhamdulilah def naa ne yàlla mi ñuy dimbale boobu ba léegi li ñu am nii man foogoo naa ne sax egseeguñu fii tey kon mu mel ni mbir mi mi ngi dem ci yoon bu baax la ko des rek mooy mu bënn am ndox ndox bi bëri barkeel te loolu lañ ci jublu nga xamante ne mu dina fi nekk ay at yu bëree bëri bari nit ñi mën koo jëriñoo euh, su ko defee lépp lu fa nit naan wala picc la wala malal la mu daal dem ci ñi nga xam ne ñoom ñoo ko financé kontaan lu dul nooy ndox amu ci morom ndox rek ndax lépp loo mën a def ndox moo koy mën a def li ma ci kenn metti ci affaire ndox sama diine dama amu daara léegi léegi bu ñu bugg a julli il faut xale yi tiim du am lu ñuy jàpp loolu moo ma ci na métti moo ma na métti ci ñàkk ndox pexe bu ne jéem nañu ko dara sottiwul amul ñu doole ñu wax ko fu ne wax ko gouvernement bi ay député ay ministre dara sottiwul ëpp na fukki at ak nangam léegi reen yàlla def ko kontaan nañu torop torop torop torop bi kontaan nañu torop ñu ñu wax la tamit affaire bi doyul de dëkk bi dëkk bu rëy la dafa rëy aussi ndox amu fi ndox amufi ben benn teen bu baax moo am fi ñaar village la ci ben village bi moy seen imam sama rakala ñing koy wax jaw en sakunda fofu tamit amul do na ñoom bu ñu bu kan naan ndox bu ne il faut ñu ñew fi root C'est puis donc Mama Teranga du nord de l'association qui l'a financé, et a commencé à travailler avec nous quand même depuis quelques temps. Je crois que vous êtes à votre troisième ou quatrième puits. On invoque Allah qu'il vous fortifie, que vous puissiez, Inch'Allah, nous accompagner dans ces projets de soulagement de ces villageois. Partons un peu au Sénégal et que ce soit vraiment des, projets qui vous fortifient dans vos, dans foies et surtout dans vos, <coughs> dans vos familles et vos biens. Donc on reviendra, Inch'Allah, une fois que les travaux seront finis pour faire la vidéo de réception de de ce puits.